kenn na nga def. mais xam nga rek yëngu-yëngu àdduna rek ca Cendu. mais mais Cendu su ma jumul dafa mel ni gis naa la ci benn vidéo benn entraînement Bayern mu mel ni yow yaa doon wax ak Sadio Mané waroon am fi nga naroon yóbbu mu ne la dañuy dem Milan directement c'était pas toi. waa waa c'est bon. Ah, ok j' ai j' ai tuddee parce que ginnaaw nga ma woon ma ne kii Cendu la. ba Sadio taxaw yow en plein entraînement di wax ak yow. mais am na am na am na kuy téléphoné ci yéen de Chérif Chérif mu ngi téléphoné. mais man da nga may jël ndaxte Chérif yow tu es déjà en direct Chérif man maa ko jox sa numéro pour mu wala te tu es en direct sur la RFM da wax ak ñun ba pare c'est urgent. <laughs> waaw ok allez Thiendou. waaw. Euh, quelles sont les dernières nouvelles parce que jege nga loolu Bayern Munich gis naa la centre d'entraînement Bayern Munich nga seq waxtaan ak Sadio Mané lu yàggul nga ñu ci mën a wax. stoppé le mondial là. waaw ah, oh, oh, ah yow la ñuy déglu rëcc du fu mu toll nii. le Sénégal de son souffle. mais ne ne ne neel Chérif je vais dinaa revenir ci moom léegi. mais mais mais mën nga dem mën nga dem tu es déjà en direct sur la RFM demal ne t'occupe de Chérif moi je lui parlerai après. waaw mais mais mais transféré ba kay kon mu non non non Tiendou euh, tu es déjà en direct sur la RFM je sais pas si on se comprend tu es déjà en direct sur la RFM Sénégal mu ngi lay déglu. waaw ah, waxal kay léegi léegi pose question. voilà ma question ma mooy. Euh, quelles sont les nouvelles concernant Sadio Mané ndax coow li bëri na gaañu na gaañu ba tey gisaguñu un tweet officiel ah, du Bayern ah nga ni. Ah. blessure bu légère la aujourd'hui parce que man tey le matin. Mhm. demoon naa au Bayern de Munich. d'ailleurs j'ai eu l'occasion de parler avec euh, docteur Peter Hubelack. ak mhm. docteur Joachim xaame ñoom ñooy orthopédie ak ñoom ñooy ñi xam ne ñoom ñooy chargé wu de la chirothérapie waxtaan naa ak ñoom ñu ne y a plus de peur que de mal loolu ñu wax. Hmm. ah wax ci nga bëgg a doon ñaar de Thierno ndax ñun fi mu toll nii moom Sénégal jàpp nañu sa waaye forfait na de. Thierno. ah Sarat. Sarat waaw maa ngi lay waaw. waaw léegi man comme ni ma la waxee gis naa gis ne ñoom ñooy les responsables moom mooy orthopédie mhm. waaw muy docteur Peter Ubalaga ak docteur Yohan Hane mhm. waxtaan naa ak ñoom ma ne leen bon goos bi démb dafa gaañu genou ñun dafa gaañu ma ne lan lan ñu ne muy genou bi daal moom am tuuti problème mais nag plus de peur que de mal euh, du doon lu nga xam ne lu garaaw la quoi d'ailleurs ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon en ret ah la la mais ñi football démb ñëpp presque bon à part les remplaçants kenn entraîné wu voilà mais plus de peur mal daal comme ni ñu koy waxee. ah d'accord est loolu mooy expliquer le fait que waa waa Bayer ba tey waxaguñu dara ndax tuuti wu ñu communiqué wu ñu. waaw ba léegi waxaguñu dara mais man ma nee naa la wax naa waxtaan naa ak les les deux les deux médecins du club voilà. waaw les deux médecins du club. voilà kon loolu moom leer na. lancé, donc euh, une information qui a fini de faire le tour du monde. Vous êtes très proche de l'équipe euh, du Bayern de Munich, ça nous le savons depuis fort longtemps. Euh, on annonce le forfait de Sadio Mané. Quelles sont les dernières nouvelles oh. que vous pouvez partager avec la RFM ce forfait n'est pas encore sûr parce que j'ai eu l'occasion de parler avec Dr Peter Ubalak et Dr Joachim Hané qui m'ont dit que bon, plus de peur que de mal, bon, il a eu hier, bien sûr, contre l'équipe de Werder Bremen, bon, des problèmes de genoux, mais ça c'est pas la fin du monde, c'est ce qu'ils m'ont dit. il voilà. a pas, il y a, a aucun signe qui montre que Sadio Mané serait forfait euh, pour la prochaine Coupe du Monde, venant en tout cas du Werder Bremen. Non, il, il, il, il, ne ah croit que bon, Sadio Mané va jouer la Coupe du Monde. Ah ah oui. très bien, très Voilà, merci. Merci à vous, Tu peux t'occuper de, de nest pas <laughs> Voilà, merci, merci Tiendou. Voilà, donc, euh, Bungan ça reste quand même un, avis très important, je dis bien, concernant donc euh, Sadio Mané. Ndax ki ñu mujjé waxal ni moo di Tiendou Cissé, yaaka ngeen ko dégg fini ci Radio Futur Média dans l'émission du doyen Abdoulaye Diaw en direct des stades. moom bokk na si ñu daanaka euh, si ñu gën a jege Bayern de Munich parce que moom yàgg na ci jamono yi même les anciens da daan il avait cette possibilité en tout cas d'aller avec le Bayern de Munich man récemment ngeen jot a dégg jot une vidéo à l'entraînement du Bayern de Munich mu yëkkati ay kàddu euh, di waxtaan ak Sadio Mané Sadio Mané ñëw ba ci wetam am lu mu dégg ak moom ñàkkul ni à cette période là c'était le chauffeur de Sadio Mané donc euh, moom nee na tey jii suba gi moom Thiendou Cissé dem na ba sa centre d'entraînement bu Bayern de Munich jot na waxtaan ak ñaari orthopédiste orthopédiste na bu ngeen ko déggee pour ñu xamul mooy ñi nga xamante ne ci mbirum yax la ñuy yëngu te ñooñu ñoo nekk ci club bi mais lañu ko wax ak li nga xam moom lañu jot a dégg dafa mel ni yëf yi dafa safaanoo xëy na peut-être que loolu mooy expliquer disons euh, ce retard constaté dans le communiqué du Bayern de Munich léegi nag la mu xam ne moo di docteur yooyu ñoom nee nañ ko dëgg la Sadio Mané amee na gaañu gaañu waaye gaañu gaañu bu léger la te jàpp nañu ni que loolu mënu kaa xañ mu dal di yëngu ci coupe du monde ànd Sénégal donc nañu tey gaay nañu tey dal c'est la dernière information que nous avons venant de quelqu'un de très réseauté au Bayern de fi mu toll nii fa la ñu mën a yam ndax euh, ku ci wax rek xëy na di nga wax loo maîtriser wul mais on attend d'avoir l'officialisation donc euh, du communiqué euh, venant du Bayern de Munich kon mbokk mbokk yi fii lañ koy daal di yemale waxtaan wi Cheikh Tidiane Diagne moo féetoon ci micro bi ci machine gi Ablaye Diop Yacine Pouy moom moo féetoon ci digital bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni